Touba ca kanam amal nañ bës bi nga xam ne moom lañ jagleel wàllum social ci koor gi di bës bi nga xam ne dañuy tànn askan wi nga xam ne seen loxo jotul seen i ginnaaw ñu jàppale leen ci ak dund. liñ doon li ñuy séddale eh, dañoo programmé woon junni fami lañ programmé woon waaye ginnaaw bi ñi koy sàkku dañoo gën a yokk ba mujj yàgg ñu def ko junni famille ak juróomi téeméer liñ leen war a séddale itam mooy ku ci nekk fas nañ leen la yéen a joxe jox. saakub ceeb bu 50 kilos ak suukar ak tàndarma ak yére boo xam ne xëy na da ko mën a sol ci kori gi ak ñeenti téeméer yu lay fayal transport bi am na ci ñoo xam ne danañ leen ci booleel diw ci joxe bi ni joxe danañ ci boolewaale diw. ndimbal gi nag tànnaale nañ ci ñi nga xam ne ay waay laago lañ daal di leen di jox ndimbal gu takku lool. waaye boole ci ay fauteuil roulant yoo xamante ni dañ leen jàppale ci seenu dem ak dikk. lu mel ne handicapé yi ginnaaw bu ñu leen joxee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 ngir retirer li nga xam ne moom moo di ndimbal googu ñu leen di jox. waaye ku nekk xam na ne jamono ji dañoo taseeg jamono joo xam ne dañuy tasee dañuy aaye dajaloo bu bëri bi tax nañu defe ko nii ndax ko ñi ñëpp xam nañ ne daan nañ ko defee ci mbaarum Daaru Xudoos ma kilifa yu bëri di fa teew waaye comme ren li ñuy wax la situation oblige moo waral ñu defe ko ci buntu.